Khadim mu université Cheikh Ahmadul Khadim complexe mi ngi complexe Cheikh Ahmadul Khadim université université Cheikh Ahmadul Khadim fondation bi nek fondation Cheikh Ahmadul Khadim tu yoy tamit yara xam la pour ràññee ko léegi ci bir université ci bir complexe bi université mi université Cheikh Ahmadul Khadim euh, di liggéey boo xam ne nii ñu ko denk ay universitaires de très haut niveau et enseignant de très haut niveau ñoko nek ci kaw docteur Lou, ak chef département nga day la euh, branche ak bi ñu li nga département IFR docteur euh, islamique arabe chef département islamique docteur Abdoulahat Sané euh, langue littérature arabe mu docteur suis euh, suis chef département langue et littérature arabe Je suis benen IFR métier et technologie professeur Mohammed Masseck Fall mom moko jité universitaire de très haut niveau euh, bu suis IFR moy IFR euh, agronomie professeur Dame Niang moko université tamit

am na ñoo xam ne am nañ ba 15 ans d' expérience ci enseignement supérieur bu waxee daal wax dëgg yàlla comme ni ko soxna si waxee sànq rek taw feex am daal taw feex daal te lu jara lu jara sàmm la te euh, comme ni ñuy waxee rek day nekk nag ay taalibe topp seen ginnaaw yi sëriñ ñu yóbbu leen fi nga xam ne moom la sëñ bi santaane muy xam-xam bu sell euh, incha allah. waaw man docteur Abdoul Ahad Lo laa tudd. maay directeur UFM e étude islamique arabe waaw comme ni nga ko waxee loolu moom jàppal na moo nekkoon jubluwaayu ñu amal jataay bi ndax euh, dafa bokk ci aada yi université yi bala ñoo door njàng mi ñu woo étudiants yi woo professeurs yi leen di jàngal ak équipe administrative bi nga xam ne mooy saytu liggéey bi ñu toog toog nañ ko waxee moom euh, weccoo la weccoo la ndax yu baree bare ni nga ko seetloo rek ay xeeti laaj la woon yu nekkoon ci bopp gone yi mais yàlla baax na ba ñoom ñëpp am nañ occasion man koo génne ba ñu was àq ci tontu leen ci tontu yoo xam ne jàpp nañu na seen xel ba liggéey bi dañ ko gën a ñeme daal loolu rek lañ ci doon dañ doon bañ rek doon bañ ñëw rek ne saraax ci biir classe yi ba defee foofa am ay yeneen laaj yoo xam ne day gàllankoor njàng ñu ne nañu wut benn jataay boo xam ne dañ ci xamante ñoom mën a leeralante lu bare bare bare te loolu suñu borom def na tëf loolu moo nekkoon jubluwaay boobu. waaw dafa bokk ci système yi nga xam ne day encourager li ñu tuddee pédagogie de réussite ndax bu dee ci système classique bi mënoon ngaa am fukki matière am ay notes yu baax ci juróom yi ya ci des amoo ci moyenne waaye bu ñu dajalee notes yëpp da ngay jàll. ndax som som som som note yi lañuy lañuy la kii la ñuy catalyser rek jox la moyen na la man ngaa jàll bu dee système LMD nag pédagogie de réussite la maanaam euh, réussir ci matière bu ci nekk day nekk farata waaw ah, day nekk farata pour nga jàll beneen matière beneen kii il faut matière yëpp da nga ci am moyen te loolu lu am solo la ci njàng ndax boobaa xale bi lépp lu ñu fu nat nas ci maquette yi da ko yóbbaale fépp dafay am ay noonu doog jàll kon ku jàll yëpp rek da ngay daal di xam ne xereñ am na maîtrise am na ci liñ doon jàng loolu moo tax ñu tànn système boobu dabu ci loolu ñu wax. waaw liñ sañ wax ci université bi la université bi e, moom ñaari pàcc rek ñoo ci tàmbali mooy daara ji ñu jiite noonu muy IEFR étude islamique arabe te sëñ Mouhamadou Mountakha moo sàkku loolu moo ne woon njàngum diine mi na e, e, laytaay njàngum université bi kon. UFR bi nga xam ne mooy jàngale arab ak diine na tàmbali liggéey bi waaye mbiru santé ak ni mu amee solo ak crise yi ñu traversé ci at yi tax na ñu ne am na benn institut supérieur de métiers et de la santé moom tamit day tàmbali euh, ci ci kii bi su ko defee yeneen bànqaas yi nag day bàyyi ba deuxième phase bi feeg déwén incha allah taala lu mel ne science agronomie ñu ngi fi woon ak euh, métier et technologie yooyu day bàyyi ba déwén incha allah Eh, seen i tabax nopi, nu dor saya door seen jang waye nun dal noy am tawfiq door jang leen université bi inshallah allah. waaw turi moy Serigne Saliou Bousso dekk ci dekk bi di Touba di jangé ci département lughatul arabiya muy langue arabe. waaw mbégte lay doon ci ñun lool sax ndax mën nañu wax ne suñ bayyi ak ñi ñu fi jitu won bari na ci ño xam mbébé ton nañ ñaan gi nga xam mom la Serigne Touba doon ñaan muy am. école bu ko yàlla defal ci Touba ñu baree bari xante woo woon nañu buñ koy ubbi ñu bokk ci ña fay njëkk a jaar ñun nag bu ñu ko yàlla defalee dañuy xam ne tawfeex la waaye de sunu njàmbaar ndax am nañu ñu fi jiitoon bëggoon ko yàlla dogalu ko moo tax mu nekk mbégte ci ñun lool ñu koy ndamoo lool itam ndax gis nañ ne bu njëkk boo masaane jàng ba am bag ngir nga war a continuer sam njàng da daan metti lool daan nga ci daj yu metti waaye lii tawfeex la joo xam ne Euh, jàngukaay bi soriw la te lépp loo bëgg a xam ban nga ko fee xam ci anam yoo xam ne mooy gën mooy gën a sell wax dëgg yàlla. ah waaw loolu tamit suñu yitte la ñun ñëpp ndax ginnaaw bi ñu doonee ay étudiants dafa am loo xam ne moom lañ njëkk a doon mooy doon ay taalibe Serigne Touba bi nekkee taalibe Serigne Touba nag lii suñ yitte di suñ bébét mooy saa su ne fu fuñ taxaw sagal Serigne bi. ni ki noonu tamit jàngukaayam bu mu jaar nekk foo xam ne ku fa jugee danañ nekk ñoo xam ne ku ñu xool xam ne fa lañ jugee dana xam ne fañ jugee bokkut ak fa ñeneen ñi daan daan juge ginnaaw bi ñu yaroo Touba dañoo xam ne université bi bu taxawee ginnaaw bu njàng mi jiitoo am na leneen lu nekkaat ci suuf loo xam ne lu ñu war a gën a mën a bàyyi xel la mooy ku fi jaar war ngaa wane lan la seriñ Touba daan jàngale lan la Serigne Touba daan wane buñ seetloo sëñ bi bi muy wax mi ngi wax ba ci njàng mi gis nañ ne lépp loo xam ne Serigne da koy bañ ci dëkk bi danañ ko suuraale ci njàng mi bañ nañ ko ba am na classe yoo xam ne dañuy séparer góor ñi ak jigéen ñun tamit lépp loo xam ne gis nañu ne lu Serigne Touba di jàngale la ak lépp message boo xam ne doon na ko lancé jàpp nañ ne ñun ay moyen moyen lay pour mën a message yooyu Serigne bi doon lancé ñu mën koo àggale loolu nag nekk ay étudiant bu ñu jàngee moo xam ñoo ngi L wala ñoo ngi M wala ñoo ngi dee war nañoo liggéey fexe ba luñ xam tamit ñu xam ne Serigne Touba lañ koy delloo ay ambassadeur am lañ fu ñu mën di nekk dañoo war a jàng ngir ñëwaat message yi nga xamne mom la doon lancer nekkon ko xamne xam-xam da koo ñor sa suné mu ci daan soññee di ci di ci ñaax ñu nekk ño xamne ne dañuy ñëwaat ngir lancer message boobu. alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Serigne Moustapha basirou Diop ñay nekk département Louga al Arabia fii xismi fii kulliyati Cheikh Ahmadul Khadim waaw loolu xanaa di sant yàlla bu baax a baax te xam ne loolu moom mooy tawféex gi nga xam ne nii moom la Cheikh Mountakha di wax naan ñi tawféex la daal. ma xëy na comme sëñ Ahmadou Badou yi ñu ngi koy ziar moom mi nga xam moom moom la sëñ bi dénk njàng mi comme ni ma ko leer rek nga xam ne ñoom seen jamono seenum njàng fu ne dañ fa daan dugg ngir doog a a am lijaasa ngir mën a am ñun ne yàlla dogal ñu am bag ren rek lañu am bag ren ci àlasar tombeek lii tij loolu taw la sa sant nañ ci yàlla bu baax te xam ne lépp rek maam ñu ngi ak yëg-yëg bu rëy lañ ci am ndax ñu ngi ñaan suñu borom defal nañu toofe ba ñu ne ñu mën cee génn am ci ay lijaaxe yoo xam ne yu kawe kawe lay doon waaw am mission yi ñu mooy comme gën a jëmmal liggéeyu sëriñ bi rek ak ak ak ak ak ak ni xam-xam yi nga xam ne sëñ moom sëñ mag bi lépp ab ab xam-xam la mooy ni mu ko waxee may li Mustafa lil banal xuddoosi madrasatan biha yazulul asa wal jahlu wal kabud xamul ne mu yittib rek mooy ak réer ak lépp rek daal di mën a mën a dañ nit ki nag ngir mën a xam diineem ba man koo jëmmal man koo ba ginnaaw bu loolu tamit mu ñu fa amee xam-xam boo xam ne dañ lépp tamit day ànd ak doonu murit dooni taalib bi mën a liggéeyal sëriñ bi moo moo doon pas-pas bi nga xam ne ne ginnaaw bu ñu fi génnee amaat amaat tëjoo jël su ma dégg daal bàyyi woo ko ba doctorat la incha allah loolu la nañ fas moom dañoo fas ba incha allah LMD bi moom lépp moom dañ koo bëgg a kii rek incha allah taala waaw loolu moom dañ ci am contentement bu baax a baax ndax nañ koo ñaan suñu borom université bi bi suñ ko ñu bokk ci élèves yi euh, étudiantes yi nga xam ne ñoo ci njëkk a génn tey suñ boroom dogal ko dañ ciy sant bu baax a baax di sant Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké sahibul fadila di wax ne daal fayam amuñu ko daal ndax li mu ñu defal moom wax dëgg yàlla kontaan nañ ci lool di ñaanal suñ borom guddal fanam yokk wéram waa loolu moom liñ ci mën a wax rek mooy tey euh, lii bi nga xam ne teewe nañ ko ndaje mi nga xam ne teewe nañ ko dégg nañ ci loo xam ne himma bu mat la wax nañ ne njàng bi njàng mu am solo liñ ko niñ ko niñ ko waxee te ñu déggee ko noonu te xam ne gëm ne tamit ñoom dinañ ko defee noonu kon ñun étudiante yi ak étudiants yi ci ñun la desee ñuy ñu góor ñu war a góorgóorlu bu baax nag xam na fii jàng moo fi am ci ni ñu waxee moom njàng bu baax sax moo fi am ak concentré wu fexe ba lépp loo xam ne ñu ngi koy sàkk ci ñun rek ñu am ci lu kawe seen njortu ndax am nañ himma bëgg nañ tamit ñun ñu ñu am niveau bu baax daal kon daal ñun ñun nañ góorgóorlu bu baax ba am ko incha allah dinañ ci góorgóorlu bu baax di ñaan suñu borom defal ñu tawfeex may ñu suñ sago ñu eggalee moom incha allah